nan bàyyi peut-être parce que yi xew nii kenn xamul lan la c'est on on sait plus dans Sénégal on est on comprend plus. d'accord alors euh, làmb bu ñu ko waxee bu fekkee ne dafa am te promoteur amul làmb du am. ban message ngay lancé tey promoteur yi nga xam ne ñu ngi résister ci géewu làmb bi jamono ji. di leen ñaanal rek. message moom amuñ ñaanal ñaan rek laa man ñaan yàlla jàppale leen ban message.